auzubillah bismillah inna yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yenent bi di nuyu assistance bi fi teew yëpp ku luxum ku lim juum di jiital si nuyoo bi su kilifa Pape Diagne Seras su ma ko joxee nuyoo bi rek jox naa ko ñëpp ci saal bi di nuyu suma papa Serigne Cheikh Kounta xalifa général mbëri di nuyu tund bawol bi yëpp képp kuy ñaanal armée rek maa ngi lay nuyu di la siyaare bu baax a baax euh, di nuyu suma xarit yi suma am ni jàmm yi ma àndal surtout di nuyu suma waa écrit di nuyu képp kuy bëgg armée rek maa ngi lay siyaare di nuyu promoteur bi di ko masaw euh, xam ni àdduna ak nii ñoo ànd bu sañoon bu tegee combat bi day am mais yi am yëpp dogalu suñu borom la yàlla moo dogal ne combat bi mënagul a am comme le vingt la yàlla nagn yàlla sutural mu am ci jàmm ak salam yàlla may ma ndam ci barke sayidina Mouhamed. yow mo kenn du la wax sa adversaire dafa wax nga deg yow xam nga ni kii la. Lamine ngayna bu mere bëñ yi ngay gis waxi mag la la wax ki tal talam ji egul le vingt. may bu ku muy signal xam na ni wax rek lay def làmb ji wax jeexalu ko de. làmb ji dama ko pare ànd seeg samay mbokk bu ci defee ay millions man dama ko tripler te taxul ma wax ko ànd ak suma ngor promoteur bee ci gën a sonn fuuf ku joxe sa alal di xaar ndogalu suñu borom bu ñëwee ku nekk day gëm yàlla làmb ji armée yàqu ko promoteur bi yàqu keneen yàqu ko yàllaa dogalul ni waragul a am ñu jàppee ko noonu sant yàlla bu baax a baax nag waaj nañ ko nu ñu war a waajee nu ñu war a waajee làmb bu ñu sumee ko dinañ xam ne waajee nañ ko noonu waxam lu mu def ci yow maa ëpp doole maa dàq bëre maa dàq xeex ak si dama koy jàpp daal. daf maa gën a ñaax saa yu ma toogee dégg mu wax loolu man kii dafa xamul daf ma umpale te maa ngi lay waatal ci yàlla ne bu gëmee li mu wax dëggal boppam ci li wax ñu bëri combat bu ngeen mus a gis man li muy wax nii yëpp man mënu maa peese maa ko ëpp xel aller retour ni ma ko gën a nekk booy temps noonu laa ko ëppee xel. man boudé ay wax rek falay jaar bataille psychologique man mo loolu man conscience tranquille lay bëree lamb ju lu laaj dañ koy def mais na deugal bopam ci li wax rek loolu rek la koy ñaan na deugal bopam ci wax ñu bëri lambi xalé taxaw wane wane ne ay xalé lañ ba pare ma jangal ko bëri ñu and ñi mo duma ko ko koy ñaan ki amul luma koy ñaan lumay wara jël ci rek la am luma koy ñaan xalaatuma ko damay jël ci rek <laughs> waaw yow kii kii xam na ni sax am na combat moom xam na ko xamal na ko boppam. làmb dóor la ñu wax lépp mën naa am en tout cas kuy dem guerre doo wax say arme mais làmbi dóor lañ jëm simple ñu lépp mën naa xew. waa loolu nag moom moom la concerné man li yàlla di dogal mbir mbiru yàlla la waaye li ma war man man maa ko war a def ah li yomb moom amu ci jël avance ma jël avance ñu wàcc atum yàlla ak lu topp muy yomb ah bu yombee day séentuwuma ko ci waaw waaw mobilisation bi ñu ngi woo ñu ci mën a teg loxo ñëpp surtout yëmbal Kër Massar département Kër Massar yépp képp ku ci mën a teg loxo mu jàpp ci surtout parrain bi ñu ngi koy woo parrain bi bu ma déggee mu jàpp ci béy ndax làmbi samedi la làmbi ji yàgg na bu dëgg rek neexee man li ma daan def di jënd sama xa sama kase ay ticket làmb ji mënuma ko làmb ji sama kase laal lépp pare ko làmb ji ah, waa na ci gars yi jàpp ñu am ay ticket ah. am ay kaar li des nag Hmm, suñu mbir la waa gere nañ ko. maa ngi lay fay. waaw jamono xaw hmm. waaw foofu nañ nañ préciser nañ leeral bu baax parce que damay dégg dafa gaañu dafa yàq loolu baat boobu te day dem baatu internet la combat bi buñ ko fi ñu ko waroon a jàpp promoteur bii moo waroon a dem màkk moo yàq date bi biñ ko yàqee yàlla dogal ñun ñëpp ay jullit lañ te farata la ñu d'accord ci ak moom mii amul lenn luñ ko ci wax ndax ku ci nekk da koy ñaan yàlla bi loolu jàllee mu ni dina ko tëgg diggante bi ñu ko jàppee waat combat bi mën naa ni xaw naa manqué organisation ci diggante dix jours régulariser wuñ combat bi ñu naan ma nii man pare woon naa pour bëre noonu mais nit ku nekk da nga am staff man sama entraînement laa am blessure bu ndaw du lu ma tere entraîné ndax am na ku may gis sax ci entraîné mu ne armé maa ngi koy gis sax muy entraîné man ni ma blessé maa ngi continuer di entraîné maa ngi dem guddeeg bëccëg di ñëw kii may àndal xam na loolu général ben régler les guñ mais mënuma am certificat d'aptitude pour pour pour pour pour pour pour pour nan ngay pour pour waral bis pour pour ci 10 jours la pour pour guñ combat bi. pour bu pour blessure lañ wax alamin bu leneen yi ci yépp ay la ko mu ñu mais du ci sama pour man blessure pour waaw moo mën moo ëpp doole loolu waxam la bu bu bu samdee daal dinañ xam ku mën koo ëpp doole fii lay xewee bu ñu tëjee barrière yi ma tëcc ko daan ko loolu leer na naa ñi deuxième bi mooy il faut ñu wax ko li doon am peut-être ren amul su ma ñaari combat yee ma ñàkk xalaatal bu nekkee yaa ngi ci làmb bu ci nekk day dem plus comme nii lay demee plus de deux ans nga koy préparer ci benn mbër après da ngay mujj ñëw da ngay bëgg a noonu rek pour libérer wu mais bii daf maa jaral suma bakkan bii loolu amul su jëmoon quatre ans ma préparé ko quatre ans parce que dayo adversaire bi la du question mën a bërëm wala daraam de waxam ju bari damay génn xale yu tuuti naan ma mbër ki nga am daa mën a wax de man leen dina tëj làmmiñam te ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dina ko tëj dina noppi de ci kàttanu yàlla dinaa ko daan jël bu rëy moom li muy wax nii moom xamul sax <laughs> moom na ubbi bëtam xool bu baax buñ tasee fi mu xam ne cin bokkul safin de